بسم الإله ينمل آئي بلا مناي ولا انتهاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi amaan nañ mbégte toog ci jataay bi nga xam ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Saalihu Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér moo ko woote waat dellusiwaat di sant Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha te di ko ñaanal yàlla sun borom yàggal ko fi dolli ak wéram waaye nag di sant mbooleem njabootug Serigne Touba gépp di feddliwaat yaakaaram ak laxasaayam ci liggéeyal Cheikhul Khadim mbooleem koo xam ne wuji woon nga Xelkom baa nga wuji woon Touba Darou Salaam ca liggéey ba Serigne Cheikh nee na mi ngi lay sant bu baax te di la gërëm tey ñaan yàlla ñu dajee ci ak tawféexi Serigne Touba Khadim Rasoul mu yëkkatiwaat ay kàddu nag di tàllalaat loxo ci liggéey bi nga xam ne at mu jot suñ àggee ci waxtu wii da ngeen ko waat xel te moo di liggéeyu euh, lagan lagan nag suñ ko tuddee xel yëpp danañ dem ci saaño si nga xam ne moom lañ fa daan góob liggéey boobu nag moo agsiwaat war a doon la 14 novembre incha allahu bii di gaaw bii di ñëw moo tax sëriñ bi dajalewaat jëwriñ yi ngir ñu soññewaat liggéey boobu di ci jiitalaat nag ki nga xamante ne bii ku ne xam ne ne mooy jëwriñu daaray lagan di alaaji Samiyel Sarr mu sëriñ Saalihu Mbakke yal na yàlla dolli taw fee xam loolu moo tax ñu toog ak bokk yi incha allahu rabbi fas ko yéenee woote danañ jox kàddu gi Serigne Khalil Lo mi nga xam ne mooy jëwriñu daara ja di wax ci turu Serigne Moustapha ma nga xam ne moo na ca daara ja mu feggoo ak Serigne Abo bu ñu noppee danañ jox kàddu gi Serigne Youssou Jenn moom Serigne Naar Jenn su ñu noppee jox kàddu gi Serigne Moustapha Jaxate moom Serigne Modou Xayri suñu noppee jox ko Serigne Donga Daraame mi nga xam ne mooy wax ci turu waa Saloum gépp kon ñun ñu maase déglu Serigne Khalil Lo ñuy wax ci turu Serigne bi ak loxob yërmande bi waa juróom bi daa tàllal mu Cheikh Saliou ci bu liggéey bi tolloo fii sëriñ bi dellusiwaat di tàllalaat loxob yërmande boobu ak loxob xéwal bi mu daa bokk ñépp te loolu mooy ngoogum saañu ma ñuy woote ci Daaray Lagan ñu jàpp ko gaawu incha allahu bii di ñëw tomb ak fukki fan ak ñeent ci weer wi sëriñ baa ngi ko yéegal bokk yépp tey tàllal loxoom boobu waa waajuram waxoon ne du ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal sëriñ bi mi ngi koy yaatal moom loxo boobu te da ci woo bokk yëpp. boobu ma nag defe naa baaxoon nañ koo xam na mi mele ngoogum saaño la kon nag nañ ko daa waajale itam du ñàkk jëwriñ yi dañ ci dellu si waat incha allahu taala ci biir waxtaan wi kon daal sëriñ bi mi ngi koy mi ngi ciy woo ñëpp. yoon wi itam fi ci gën a ara tax mooy yoonu tali bi ndax bu dee yoonu nawet yi ndox mi bari na lu mu ci xaw a kii su ko defee mboolem ku jógee tubaabu fekkee mbar du sori ci yow mën ngaa jaare yoonu mbar yu ba ak si dëkk bi ñuy wax Malka. foofu it sëriñ bi defoon na fa ab raara boo xam ne da nga mën a ñëw ba ak si tool yi te incha allah doo am benn jafe-jafe su fekkee ne ndakaaru nga jóge nag wala Kaolack ba wet googu itam mën ngaa dikk ba Gossas nga jël tali bi ci Malka boobu ngay wàcc si su ko defee incha allah oto yu mag yi mën nañoo ñëw ñu yëpp ba ak si daara yi sababu suñu yëkkati kàddu nag mooy woote liggéeyu ngóobum saaño daaray Lagan comme niñ ko baaxoo woon ngi yëkkati kàddu gi nag ci ndigalul Cheikh Abdou Latif Diène moom Cheikh Issa Diène di ko ñaanal suñu borom ko fi ko ak njaboot ak ci ndigalul sunu kilifa Serigne Sidi Naar Jëll ak njabootu Cheikh Issa Jëll yëpp bàyyiwuñu kenn woote bi nag ñu ngi koy tàmbalee ci tund njenne lagan di ci woo waa njenne lagan di ci woo waa xay mbayaar di ci woo waa man naan di ci woo waa narga di ci woo waa siidi waa mesere waa tewru ngaari ak curongeen cele daaru rahman daaru salaam niis xay barka baxdaad lansaar mbar tuubaa njenne ak euh, bu dee fii ci Touba tam ñu ciy woo waa Touba ci njiital Serigne Cheikh Diop bu dee Ndande Fall ñu ciy woo waa Ndande gépp ci njiital Serigne Dame Faye ak waa Njabel Gosaas ñu ciy woo ci njiital Serigne Cheikh Dieye ak Serigne Cheikh Ndak liggéey bi nag lagan lañ koy defee ñu ngi ko jàpp le 14 novembre muy gaaw bi nu jëm ñu ngi ciy sàkku teewaay yu ñëpp bàyyiwunu kenn di wax ni tam ñu ngi ciy beralu cant suñu bokkum taalibe bi ci taxawaayam muy Serigne Samuel saar ak Serigne Babacar sëriñ Saalif Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad tam daan ànd ñu liggéey bi nekkoon jëwriñu sëriñ bi ñu koy fàttaliku bu baax. sant sunu waajur sunu sëriñ sëriñ Mouhamadul Mountakha Jaxate moom sëriñ Hamsatu di wax ci kilif ci ndigalam ci mbooleem njabootuk sëriñ Hamsatu di woo mbooleem njabootuk Mahmoud Asta gépp di woo ñi ma bokkal Cheikh Mouhamadul Xayri ci gépp fànn di woo jullit yëpp di woo taalibi yëpp rawatina jëwriñ yi nga xam ñoo féete Ndakaaru Cheikh ba Jonn ak Jibi Faye ak mboolem ñu fa nekkal di woo ñi féete mm, Gosaas ak li ko wër sëriñ Babacar Sarr ak mboolem mbokki taalibe séeréer ya fa nekk yëpp di woo mbokki Touba gi rawatina daayira Matlaboul Fawzayni yi nga xam ne yëpp ñoo lëkkaloo ci kër sëriñ Mouhamadul Xayri fas yéene defale ko ñi ko sëriñ bi bëggee te ñaan yàlla ak sëriñ bi dajale daje ca ngërëm ak tawfeexam di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéeral ko te yeggale ko tam bañ am benn ndog tan ànd kook moom ci barkeb si Ahmadul Xadim moom sëriñ Saalihu ñu ngi wax ci turu sëriñ Fallou Seck bu ma jógee ci loolu damay dénk guni yi nga xam ne liggéey bi am na ci ñoo xam dañuy ñëw ba agsi daanaka a njëkk a jiital lool ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax waaye dama bëgg ñu yokk taxawaay bi fu oto war a dem nag bu soobee sëñ Tuubaa na ko sëñ Fallou daan yebalee danaa ñëw Kaolack fu oto war a dem ñu yebal ko fa bu soobee yàlla oto bu oto daal ñëw daal nañ seen oto dana fa àgg bu soob yàlla ñen ñi daan boole itam ñu yóbbu oto yi fi ñu war a dem danañ ko def kon ñoo jot a déggandoo woote bi xam naa ñuy xamle rek ne képp koo xam ne soxla nga oto na ngay laaj oto ba diirub ñeenti fan laata ñuy àgg ca liggéey ba ba oto ba mën a teel a ñëw fa yow sëriñ bi nag nee na mi ngi ciy soññ jëwriñ yi nga xam ne ku ci dégg saw tur da nga xam ne daanañ la woo ci liggéey bi waaye ci jëmee ko ci rakki boppam ji jëwriñam di sëriñ Saliou Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad yal na yàlla dooli ngërëmam dooli xam lépp luñ liggéey ca tool ya tuyaaba ja yàlla na ko fekk fa mu tëdd ca barsaxul Muhammadiya tey ñaanal ak njabootam sëriñ bi nag nee na woote bi mi ngi ciy jiital mbooleem ñi mu bokkal sëriñ Touba ñëpp te kooku bu ko tuddee ndigal la ak ñaan nga da koy tàmbalee ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbacke waaye di ci teg nag mbooleem ku yaakaar sëñ Touba rawatina sa maam liggéeyaloon sëñ Touba ba dégg ngërëmam di ci woo nag njabootu sëriñ Mouhamadou Jeegi ca saa yuñ tuddee lagan xel yëpp dem ci ñoom te ka ne ca bopp ba di sëriñ Sidi Mbacke Landang sëriñ Basiru Mbacke moom sëriñ Abibu sëriñ Basiru Mbacke moom Cheikh Mahamadul Muntaxa ne ca Mbul sëriñ Fàllu Mbacke moom sëñ Mbacke Madina Malka njabootug sëriñ Aliou Seck Wanaar ci turu sëriñ Modou sek nekk ci Kër Ñang Alaaji Moustapha Seck Seydina Aliou Seck sëriñ Cheikh Bamba Seck sëriñ Babacar Seck sëriñ Cheikh Darame nekk ca baydaa ak sëriñ Darame nekk ca Caaxumaatu di ci woo itam njabootug sëriñ Issa Jenn gi ci njiitul sëriñ Abdoulatif Jenn sëriñ Sidi Naar Jenn xalifab sëriñ Naar Jenn waaye ci turu sëriñ Youssou Jenn moom sëriñ Naar sëriñ Moustapha Diakhaté moom sëriñ Modou Khayri sëriñ Fallou Tine sanc Daaru Salaam sëriñ Cheikh Modou Fall Baye Fall sëriñ Khadim Tine Mbacke Bawal sëriñ Fallou Kan Tewru sëriñ Jiriloo Kër Ñang sëriñ Souley Gaye Sajaratu sëriñ Bàcci Diop Malka sëriñ Fallou Sall Kortiel sëriñ Ousmane Loum Kortiel sëriñ Moustapha Guèye Daaru Taneeful sëriñ Abdou Diongo ak Gosaas ak la di ci woo itam sëriñ Mourtala Ndooy Ndooyeen sëriñ Bàcc Busa Param ak waa daayira Masalikul Jinaan ba sëriñ Cheikh Sarr Ndoka Sarr sëriñ Xaadim Sarr Ndoka ak waa Ndoka Sidi Gépp ak waa Yal Gépp sëriñ Mbay ak waa Mbuur ak li ko wër alaaji Maas Ñing Touba sëriñ Ibrahima Ngom Buqatul Mubarak sëriñ lamin Diallo Touba Parcelles ak waa Dakar Gépp sëriñ Talla Wadd benn barak sëriñ Ousseynou Kan borom jaasi lislaam jàmbaari xel koom ca Dakar sëriñ Asiru Wadd Kaolack ak li ko wër sëriñ alxaaji wilaan gatu malik ak li ko wër di ci woo itam waa Thiès ci njiitul sëriñ Ousseynou Sakho ak sëriñ Abdou Fall sëriñ Mbacke Aan chef de village su Aaneen sëriñ Maysa Gueye ak waa daayira ba sëriñ Ndiame Aan Mbodjeen ak waa daayira ba ci njiitul sëriñ Bàcc Mbodj ak sëriñ Daouda Mbodj alxaaji Saliou Sène Bambey Séréer sëriñ na Jonn Ngoya sëriñ Modou Diouf ak sëriñ Khadim Diouf ak mbooleem njabootuk sëriñ Saliou Diouf gépp soxna Nday Jaw Njaañ ak li ko wër daayira téeri Touba ci njiitul Serigne Bay Sarr ak Serigne Baara Ndiaye daayira ouvrier Touba ci njiitul Serigne Mor Gay ak Serigne Atou Cissé daayira soppay Serigne Saliou yëpp ci njiitul Serigne Ibrahima seen di ci soññ itam mboolem transporteur yi di ko tàmbalee ci alaaji Mbay Touré moom Serigne Issa Dieng alaaji Abdoulahat Ndiaye dakaar Serigne Cheikh Gueye Mbana Serigne Xaban An campement Ngexoox Serigne Baara Seck ca Kaolack ak Serigne Abdoulaye Niang ca Kaolack sëriñ bi nee na daal liggéeyal yàlla la liggéeyu lislaam la ñu ni ko wootee ca lagan képp koo xam ne soog jot man doona la ko ma nga la cay tàllal loxo tey ñaan lépp luñ ca def yàlla nañ ca dajeek tawfeexi Serigne Touba la 14 lay doon di samedi insha allahu rabbi ñoo ngi ñaan ku fa teew yàlla nga tàbbi ci biir waqdi hawaaiji lazina daamoo fii xidmati wa hablahum maaraamoo wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu